fa xëyee naka ci ay joote ngir samp ab commission d'enquête parlementaire naka yéenekaay bi ne fintoori naka assemblée démb moo rawoon arène nationale assemblée nationale naka déclaré na la guerre ci conseil constitutionnel le PDS ak Benno Bokk Yaakaar naka joxante nañ loxo la bëgg xam nañ ko Yewwi Askan ci boobu jamono naka siège na dans la commission majorité naka division naka à naka de report de la présidentielle fintoori naka ñu bëri ni ki a tax porte na bi ngir rek fexe bu élection présidentielle moom bu ca bokkul ñu dal di koy toxal toxal nag loolee ndax nag di ki démb fësal na sa assemblée nationale assemblée nationale boobu fi ñu mu bëgg bokk nag assemblée nationale c'est en pâture les sept sages fi ñu toll nii les sept bi démb nag saasatuñu ndax fi ñu am na si ñaar ñoo xamante ni war nañu no càmbar ndax nañu def nag jàpp nañ ne ab corruption da mun a ne li ki démb naka daanaka moo nekkoon ci assemblée nationale waxtaan wi enquête yéene ne si a en fonction naka de la victoire yéene ne Karim Wade fi daanaka la mu bëgg léegi mu am victoire léegi mu am ndax les députés ribéo taxaw nañu naka ngir ñu foomu élection présidentielle boobu wala rek nag ñu daal dee dugalaat ki nga xamante ni moo di Karim Wade Cheikh Tidiane Dieye candidat soutien naka di Diomaye Faye nee régime bi dafa nekk rek di ouvrir ab boîte de Pandore boîte boo xamante ni si duuma ak wele-wele kese ñoo tëral dee nekk au théâtre des pouvoirs yéene bi nga xamante Wade PDS naka ab na gain de cause la mu bëggoon am na ko 120 députés ñoo dal dee voté 24 naka contre groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi bu lànk na siège naka ci boobule commission tribune yéen si xëy dam say samp ndax fi mu yi nag ki nga xamante ne si moo di Karim Wade te dafa mel ni am nañ faree ci benn bokk yaakaar ñooñu la bëgg am nañ ci nekk tamit bëgguñu ne nag si si biir benn bokk yaakaar ci biir yéen kaay bi nag naka l'info yéen kaay ne benn bokk yaakaar ak PDS ñoom naka ñoo ngi dicté loi ñoo joxante loxo la ñu bëgg rek moo di fi ñu yi moom ñu daal koy tegee na le wax ci leneen waa PDS sañu tag seen tànk naka moo di fi fexe ba càmbar càmbar naka ñaari juge yooyu faree ca conseil constitutionnel ndax jàpp ne na ab gerte ca am bu ñu daal dee gàntal seenu candidat boobee di Karim Wade ci doon yor yor yéen kaay mise en mort parlementaire dong moo leen tax a jóg lu mu ci doon ne voie d'un rapport bés bi le jour ci la xëy fësal naka wàllu ak benn fond bloc Karim ñu ngay jubili naka Karim Wade naka jubili na ndax ne naka amut lenn loo xamante si lu jub la lu jaadu la lii jaadu lii quotidien xëy na koo fësal nee na le PDS naka remporté na première marche bi ndax ni ki démb la bëgg naka am nañ ko moo la fexe ba samp ab commission d'enquête parlementaire boo xamante dina mën a déglu gannaaw invalidation candidature Karim Wade na Benno Bokk Yaakaar naka gannaaw défiance conseil constitutionnel naka ak député la di laaj la bu ñëpp di laaj moo tax yéenekaay bi di stade xëy na koo laaj Sénégal la plus de titulaire naka poids à l'âge naka yàpp leen yéenekaay bi fi xëy na samp ab laaj bu rëy moo di